ndax loolu dafa liggéeyal yàlla ba yàlla faye ko nit ñi fayee ko xol yi luñ ne mënta nekk rek sëriñ bi man na ko aw ñooñom man nañu te jàpp naa ne nañ ko defee woon daawit màggal gi insha allahu rabbi noonu lañ koy defee sëñ Fallu bisimilah waaw moom dañ bi noonu ko sëñ rek noonu rek la demee maanaam euh, nañ takkaat suñu ndigg te gëmaat sëriñ bi te wóolu ko mm-hmm. te xam ne waxi sëriñ bi dellu gannaaw mm-hmm. wan fii loo baax wal balaaya kullaha anha wa tayib surbaha wa aklaha noonu la ko waxee woon wan fiir wa baa ba daa jaar ci tur wi wal wal balaaya kullaha loolee sëriñ bi waxoon mooy am fi tasrifi daa an mardal jami bi wasrif lahu mujibaatul amni wal musal sëriñ Tuubaa léppam fàggu ko léppam waajal na ko li ci des kay ngëm ci des léegi nag jamono daa toll foo xam ne fi ku teeyut dañ yàq sa ngëm jaxase sa pas-pas te moom lañ leen di bëgg a wan nii ndax fii ne mbir mi ngay gis nii maanaam mbir mi tekkiwul dara dara dara dara amul dara lu muy tekki ndigalul sëriñ bi rek mooy li wér képp koo xam ne kii daal sëriñ bi gëm nga sëriñ bi te wéy ndigal yëf yi bul ko déglu bul ko xool jumaay sëriñ bi kenn bañ ko waxee bañ ne bañ ne jumaay tubaa tëj nañ ko ah, jumaay tubaa ngay julli may la Touba de jumaa Touba ji ëpp na waaye maa ngi déglu seen Abdou Samad bu ne Allahu ma ne Allahu <laughs> ah, bu ne Allahu akbar rek ma ne Allahu akbar de keroog naan naan ma day tëj may leen ah ña ñëwoon di ma ko wax dama leen ne bu ngeen demee bu tëjee jumaay ji jaar ci jumaay seen Abdou Samad tëj ko moom jëru ngeen di ak si bu ngeen noppee rek ma di ko tëj waaye li fekk dafa gureel loolu nag kenn mënut a tee man may jullee ka def ne ko sëriñ bi bëgg ne ko sëriñ Touba nañ ko bàyyi xel am pexe la mm-hmm. moo xam ne bu ñu ko bàyyi wut xel nag murid yi dañuy def ne lii dëgg la bañ man cee jaare ba màggal Tuubaa gi ñëw di ko gàllankoor mhm. loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dara xewut mhm. gënoon na fee métti te teewut nañ yàlla defal suñ suñ sutura sutura soosee nag nañ fexe ba murid yi bu ci dara dellu gannaaw nañ takkaat suñu ndigg bu baax xam ne moom même sëñ bi bu fekkoon ne yëf yi dëgg la tey demee noonu itam maanaam ndigalu suñ tubaab yi suñ bakkan yi dañu ko wër a jaral nag ah, waaw ndigalu suñ tubaab yi moom bu loolu dëgg la nga xam ñu ngi ciy teg bët suñ tubaab digle lii lii suñ nag suñ bi suñ bakkan yi dañu ko wër a jaral waruñ ci am luñ ci ragal waruñ ci am ci luñ ciy tiit loolu nag nun ñëpp a ci bokk nun ñëpp a ci bokk ci xalifa ba lay tàmbalee ca kaw ca sëñ Muntaxa ma ca kaw ba ci suuf nun ñëpp a ci bokk fexe ba daal sëñ Tuubaa daal ndam lii ko yàlla defal ci àdduna ndam loolu daal nay sar ba àllaaxira rek li tax mu am nag mooy nu takk suñu digg nag bañ a déglu kenn bañ a gestu kenn xam ne nun daal danoo jaayante sëñ bi jaayante lañ def nit nag mënoo jaay dara ba noppi nga amate suñ bakkan yi dañ koo jaay mënoo jaay dara ba noppi sëñ bi jël njëg gi lekk ba noppi di moomate loola kon saa boo ko bëggee moomaa rek xamal ne war ñëw na suñ bakkan yi daal luñ ci bëgg danoo bëgg war suñ ko daal nun daal na nekk ci loola rek loolu rek ma ci war a